góor guy gedd góor guy gedd pour lan coowoo mënul ñàkk mais yow góor goo xamante ni yow la sa soxna wax bu dee tey ci lal bi ngeen war a tëdd yéen ñaar nga daal di koy gedd déedéet góor yàlla dëgg du gedd meroo mënul ñàkk couple boo gis réeroo dina ci am mais nagit góor du def lu la sa soxna wax boo xëyee ba war a joxe dépense doo ko joxe yow muy moodu moodu bi tukki boo amee réeroo boo defal teg sa soxna téye la nga ko daan jox kan moo koy jox fan la koy jëlee téye la ngay joxe damm sa poos doo woote doo yónnee ndax dangaa mer góor tëgg du faje noonu meram yow mi nekk Sénégal nekk sa soxna ci biir kër gi weerante bu ndaw am seen diggante guddi jot nga tëdd lànk banku gedd sa jabar wala nga wàcc ci suuf wala nooy faje mer mi tëj sa buntu ne xaaju guddi dem fanaani àll koo koy def sa bopp nga koy def coowoo ci couple mënul ñàkk mais góor du gedd góor moomul gedd ak ay neex nga xuloog soxna guddi ngeen reyante ci néeg bi nga pare taf ko sa kaw dënn bii ni ko fii ngay fanaan bu man la soxlaa dama lay am lu ma neex ndax maa la takk ànd ci kër gi góor dëgg noonu lay def sa soxna bu ngeen meroo ba asamaan si na wàcc dépense bu dee góor dëgg sa dépense na ko teg si nga ko naan teg jotee tëddal sa kaw ko moom soxna si nga mere ba gedd ko sa soxna la ci biir kër gi bis boo fa noppee nekk mu noppi saa nekk kon comme yaa ko andi ci biir kër gi te réeroo mënul ñàkk góor du gedd gedd bi mi ngi dagg xolu jigéen ñi gedd bi jigéen ñaa ngi koy souffrir wala nga nekk ci kër gi joteeg moom génn ba ko kër ga di fes dem sa yoon góor du gedd nga sa soxna fanaanee jooy guddee bëccëg nga tëdd suuf mu fekk la fa nga tëdd ci kaw mu fekk la fa xanaa sa yow sa yaram du daw na seen yaram di daw jigéen yoruñu xoolu kawsu xool lañ yor di bëggante réeroo mënul ñàkk ci couple waaye mere sa soxna wet gedd ko abandonné ko mën nga koo dem ba poussé ko ci lu mu bëggul woon a def te loolu du yëfi góor sa soxna rayante leen mais bu guddee xamal ko ni man maa la ànd ci kër gi dañuy bëggee ba mu neex mais pas nga abandonné ko ni ko fi ñukk dem sa yoon ne ci la la neex ni da ngay def te góor dëgg defantee noonu kon góor yi da leen bàyyi gedd gi gedd fenn jigéen ñaa ngi bëgg a dee ci néegi jooy nañ guddi jooy nañ bëccëg jooy ba seen ndoxum bët jeex ndax gedd moytu leen gedd góor yàlla du gedd man soxna Mbodia Mbaye lii laa leen andi tey di leen wax ci góor gi gedd ma teel si waat ak ci leneen